أنزل القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jéggalu ci tardement bi nekkoon ci benn conférence Grand Yoff maa ngi doog a pare ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu loolu ñu ngi suratul baqara ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël ñetti aaye aaye 106 ba aaye 108 ñetti aaye yi allah subhanahu wa taala mi ngi ñi ci xabaar delloo gi nga xam ne mu ngi koy delloo ñooñu di jam diine ji di jam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam te mooy yahud yi ak nasaraan yi naan muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaamuru ashaabahu alyawma bi amrin wa yanha anhu gadan ñu naan ñun dey waaru nañ ci kii naan ab yonent la su teyee mu ne def leen lii ginnaaw suba mu ne bàyyi leen loolu def leen lii ñu de yéemu nañ ci lool tey mu digle leen suba loolu mu digle woon mu ne jullit yi bàyyi leen loolu def leen lii lii la yàlla bëggaat ñun daal waaju mel nii dëgg-dëgg ay mbiram jaaxal nañ mu ne yàllaa ko yónni te ñun li ñu seetlu ñun yahud yi ak nasaraan yi ci sunuy téere loolu amu ci allahu akbar di wax lu leen neex borom bi di ñu jàngal ñun jullit yi di ñu leeralal pour ñu sorante ak jikko yahud yi balaa ñu leen di topp ci melokaan yii nga xam ne lu yàlla wax loolu mooy lu am lu yonent wax loolu mooy lu am yàlla moo moom alxuraanam yàlla moo moom diineem yàlla moo yónni yonentam su ko neexee mu ne ko defal li suba mu ne ko bàyyi lii defal lii bu ngeen gisee yàlla di weddi sa yahud yi ak nasaraan yi c'est parce que ñun jullit ñi balaa ñuy jël seeni melokaan ñuy alko yàlla tabaraka wa taala ci alquran man suuxal na ci sharia yàlla man suuxal na ay mbir yoo xam ne début l'islam dañ ko doon def yàlla dindi ko bokk na ci début l'islam fan lañ daan jublu bu ñuy julli baytul maqdis après yàlla ne yonent bi tourné fil masjidil haram yàlla moo moom moo moom xiblaam walillahi almashriq wal maghrib yàlla moo ko moom yàlla lu ko neex mu def bokk na ci ba tey woor asura yàlla dindi na asura mu man suuxal ko mu sant jullit ñu woor ramadan ku woor asura nga am tiyaaba ku ko woorul doo am bakkaar ak yeneen i mbir yu bare bare bari yoo xam ne incha allah ci kanam des na ci gis comme aaya rajm bu màgget bu góor ak màgget bu jigéen njaaloowee nañ leen rajam nañ leen rajmu ba ñu faatu kooku waxuma la man suux rek mais dañ ko dindi complètement ci alquranu karim njàng mi ak at atte bi des njàng mi ñu daal di ko ci éliminer niki noonu yàlla di xabaar di xabar jullit yi ne mbiri mansuux naasix ak mansuux mbiri yàlla la tabaraka wa taala bu ko neexee mu dindi mbir indi mbir moom yàlla subhanahu wa taala loolu nag yàlla rek moo ko ñeme moo tax mu ne ko alam taalam anna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla lu ko feeñ lu ko neex mu def alam alam taalam anna allaha lahu mulku samawati wal ard ixwatal iman ñetti aaya yi insha allah su neexee bur yàlla tabaraka wa taala ngoonuk tey gi ci lañ koy jeexal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد دل سواء السبيل يقول جل وعلا بور سبحانه وتعالى منه ما ننسخ من آية yàlla mu ne tabaraka wa taala du ma changé du ma dindi benn aaya aw nunsiha min aaya min ayatil quran jumla wala kalima du ma dindi lenn baat wala ma dindi aaya mu daal di yenu sax maanaa bu wér comme daganal ak araamal man yàlla du ma ko dindi maa nan sax min aaya du ma dindi benn aaya aw nun siha wala ma fomp ko dindi ko fa jële ko wala ma changé ko ko teg place am leneen man yàlla du ma def loolu aw misliha wala lu mel noonu lu dul ma daal di indi lu ko gën place am daal di ko fay def maa nan sax min aaya aw nun siha naati bi xayrin minha man yàlla du ma dindi benn aaya wala ma dindi benn baat wala ma dindi benn atte ma jële ko fi indi fi leneen wala ma bàyyi ko ak noonu mu meloon lu dul dinaa ko indi natti dinaa indi bi xayrin minha lu ko gën a baax loo xam ne jullit ñi seen yiwu àdduna ci lay nekk ak seen yiwu àllaaxira aw misliha wala lu mel ni noonu lu ko lu tax yàlla mu ne alam ta alam xanaa xamu leen anna allaha naka yàlla qadirun ku mën la ala kulli shay'in ci lépp lu mu mën a doon lépp yàlla moo ko mën yàlla mooy buur bi mën lépp am na fi benn théâtre bu ngeen doon seetaan ci télé bi ñu ci daan jàngale benn waay bu ne damaa mën lépp ñu tuddee woon ko ba du mën lépp fan la mujjee mooy ndeke ba du juum na mënul lépp yàlla moo mën lépp tabaraka wa taala nit bu yeboo nga yor alal bu dul jeex bu yeboo nga yor doole ju dul jeex bu yoroo nga yor xam-xam bu dul jeex yoral kàttan bu dul jeex loolu yëpp lu muy tekki mënoo lépp ki mën lépp mooy yàlla anna allaha naka yàlla ala kulli shay'in qadir benn waaye liir na aaya bi inna allaha ala kulli shay'in qadir bi mu ko liiree mu gàddu aaya bi jubal ci benn borom xam-xam ne ko man de dama jàng ci seen alquran bi inna allah ala kulli shay'in qadir aaya la wala du aaya mu ne ko aaya la wér na wala wérul mu ne ko wér na kay waaw man de dama ci amoon laaj borom xam-xam ne ko mbar da nga ci sikki sàkk mu ne waaw dama ci sikki sàkk kay jazakallah xeyran yal na yàlla teral baarakallahu fi ma anfaqti wa fi ma amsakti danga ciy sikk sàkk wala mu ne waaw dama ci sikk sàkk yi waaw lu ci wax nga ciy sikk sàkk mu ne ndax yàlla daal li mu wax fii daf ma xaw a tey sama xel mën la lépp mu ne waaw mu génne benn nen mu ne nen bi damaa bëgg yàlla jël adduna bi dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj fekkee mën na lépp ne yàlla jël àddina bi yëpp dugal ko ci nen bi te bu mu ko toj borom xam-xam bi ne ko yàlla def na lu ëpp loolu de mu ne lan la def mu ne jël na lu gën a tuuti nen dugal ci àdduna bi te toju ko xottiwu ko mu ne loolu lan la mu ne sa bët yi yaa ngi may gis mu ne waaw mu ne su ma dugaloon sa bët doo ma gis bët ak nen la ëpp nen moo ëpp bët ah yéen a ngi gis jàkka ji xoolal jumaa ji ni mu toll dafa dugg ci seen bët bu ci dugaloon du ngeen ko gis yéen a ngi may gis damaa dugg ci seen bët su ma ci dugaloon du ngeen ma gis yàlla moo ko ci dugal image yi la ci yàlla dugal nga gis ko waa ji daan ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah léeg-léeg nit di diingat ci diine gàddu ay bagage am ak di wax fekk lu ko waral mooy ñàkk xam-xam rek mais boo amee xam-xam dangay xam ne yàlla tabaraka wa taala lu mu la wax loolu la alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na man mi bind maa xam alaa yaalamu ndax xamul man xalaqa ki bind xakay ki bind moo tax yàlla bi mu xamee li baax ci ñun mu ne ñu lii moo baax def leen mu xam lu bon ci ñun mu ne lii moo aram bàyyi leen misaal sàngar yàlla mu ne bàyyi leen ko kenn ci yéen naan amul amaluñu njëriñ xoolal sàngara ni muy détruire nit yéen ñëpp jàngeen ko ci science sàngara day jàpp ni détruire ko su amoon doole fu muy mujj néew doole su amoon personnalité fu muy mujj ah ñàkk personne wala mandi ñëpp jàpp la di la sotti ndox di la dóori daal ci koñ bi foo génn ñu la yuuxu da ngay mujj sa langage changé sa gémmiñ changé sa làmmiñ changé sa tundin changé loolu ci jële feebar kon yàlla bu la nee bàyyil bàyyi ndax boobu kasa la xoolal sàcc balaa ngay xam ne sàcc yées ñu jàpp la xam nga bu la police fekk see sa kër nag fekk nga nekk kilifa ci biir kër gi xam nga lu ñu lay wax génnal dugg ndànk ci oto bi bu kenn yëg soo dof dof la dañ lay mënatu fi troxal la ci sa kanamu njaboot bu fekkee ku jàpp ci mbedd mi la moom flagrant délit moom dañ lay dóor dóor yu métti mënul la yenn saa yi sax waa ji ñu dàq ko mu daw dugg police mooy yóbbu boppam non rombal boobu xëy na boobu garaawul xoolal njaaloo fi mu nekk nii ku nekk ndaw nekk jeune da ngay defe ne boo njaaloowul bokkoo pour yow xale bu jigéen boo gis rek war ngaa xam lu mu woddoo xale bu góor boo gis war ngaa xam lu nekk ci tubéyam xoolal am ci doom nag wala nga am ci ay doom balaa ngay xam ne moo yées moo ñaaw bàyyil ba nga am juróom fukki at bu sa sikkim bi commencé weex sa bopp bi commencé weex njaboot gi wër la nag léeg-léeg nga gis ci benn doom sa xel dem ci ba ngay am doom ji takkoo woon yaayam da nga ci am xam-xam sax ñu bëgg laa namee ja imaamu jàkk nga ni noonu baax na parce que da ngay bañ ku la fekk fi ngay jiite ne la eh eh eh nga xool ñu ne xolal taxawal fee am na benn dëkk boo xam ne dañ doon nommé imaam ñu ne imaam bi dañuy seet ku baax ku sell ku set ku musul mooy yàlla ñoom tamit jël mbir yi diisal ko taral ko ba mënoon nañu seet ku jàng rek mais ñu ne déedéet ku musul mooy yàlla loolu bu ñu koy gisee ñu def benn pëjum ñu ne da nga yéeg taxaw yor benn yàpp waa dëkk bi xool la su kenn waxul dara ñu nommé la ilimaan ñu daal di xaaj dëkk bi ñetti xaaj xale yu góor yi paa yi màgget yi xale yu góor yi ku yëg rek xale jigéen ñi la moo dimbali nu de wàccal yow yow ku ngay bandi wàccal nga wàcc xale yu góor yi ku yëg rek wàcc ba xale yu góor yi jeex paa yi commencé yéeg paa bu yéeg rek mais dina la moo dimbali nu wàccal ba paa yi jeex am na ci am na ci benn paa bu màgget moom mag ci dëkk bi mu yéeg kii kenn xamul ko dara ndax kii moom wax dëgg yàlla kii mooy maam diw kii kenn xamul ko dara kii kii di ku baax la mu taxaw gu tourné gauche droite yëkkati bant bi dóor ci pojom bi gaa yi ne ah affaire bi da baax na kii la kon de kii la benn xale bu jigéen ñibbi rek maamam ne ko ndax nommé ngeen imaam mu ne ah paa diw de laa fa bàyyi mu ne paa diw maam diw xaaral ma ñëw mu ñëw fekk ci kaw mu taxaw mu ne ko eh Ablaye Ndiaye mu ne ko waaw mu ne ko wàccal mu ne wax nga dëgg wax nga dëgg loolu moo tax nit ñi islam lu mu leen tere nañ ko bàyyi parce que daf lay topp te nag du du lu yima lim rek du yima lim rek de wala riba wala carte ngay gis ko dem teg kayitu këram ñu gañe ko génne ko kër gi toroxal ko ci mbedd bi sànni ko islam lum la tere Cheikh Abdou Abdoul Hamid Kish mu ne islam musta tere dara ñu ne islam lu mu tere mu ne noonu la dara baaxul lu mu la tere rek bàyyi ba pare l'islam lu mu tere mooy yow sa ngëneel moo ci nekk mooy dalay aar aar sa morom xoolal jëw jëw bu islam ne bu kenn jëw waaw mi ngi lay aar mi ngi aar sa der mooy bu kenn yàq deru nit même bu fekkee nit ki day njaaloo sax yow nga xam nga amoo droit wax moo tax mu araamal jëw amoo droit tooge fee di ko waxtaan amoo ci droit al xiibatu asaddu min azina jëw moo gën a bon njaaloo kon l'islam lu mu tere lool la yàlla lu mu def lool la fa kullu ma faala al jalil fa huwa jamil lépp de buur yàlla tabaraka wa taala buur bu màgg bi lu mu def bul wax yàlla lu tax nga def loolu moo tax alxuraan nañu maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul julit bu góor wala bu julit bu jigéen yàllaa ku yonente ne nii la ba pare ñu naan waaye waaye amul place ci lislaam ma nansax min aaya aw nunsiha nati bi xayrin minha aw misliha yàlla nee na atte bu ma dindi wala aaya bu ma dindi wala baat bu ma dindi wala ma bàyyi ko foofu dinaa indi bu ko gën wala bu mel ni moom du ko tax alam taalam xanaa xamul leen ni ah kay xam nañ kay dañoo bañ alam taalam xanaa jàngu leen ni ah kay jàng nañ dañoo bañ anna allaha naka buur yàlla ala kulli shay'in ci lépp mu mun a doon qadir moom yàlla mën na alam taalam xanaa xamuleen ah kay xam nañ dañoo lànk wala am nañ lenn ci xam-xam donte ne bu bëriwul xam ngeen lu tax yàlla bu waxee lool la lu mu def lool la mooy wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam yéen xamuleen lu tax yéen wa ma utitum min al ilmi illa qalil yéen li ngeen am ci xam-xam dafa limité yàlla nag yaalamu ma fi samawat wa ma fi l ard wa yaalamu ma yaliju fi l ardi wa ma yaxruju minha gis ngeen yàlla moo xam li ci asamaan moo xam li ci suuf moo xam lii yéeg jëm kaw asamaan moo xam lii génn ci kaw suuf yàlla moo xam garab gi samp fii xob yi ñaata la xool leen garab gi yéen a nga gis ku xam xob yi ñaata la wax lëkkati sa loxo xob bi ci wadd ci suuf ak ya ca des yàlla moo ko xam am na benn waaye bu daan génn ci télé bi ak rajo bi naan géej gi xam naa ñaata paan la suuf si xam naa ñaata yéen a ngi koy fàttaliku déet bul wax turam xoolal loolu nu mu grave naan ndox xam nañ ñaata litre la suuf si xam nañ ñaata pepp la loolu xëy bu la xëy yàlla moo xam loolu xëy bu la yàlla moo xam gis ngeen garab bi waxuma suuf si xobu garab yi buñ ko laajee ni xamul ñaata la yàlla nee na man xam naa ko xam naa yi wow xam naa yi lax xam naa yi wat subhanahu wa taala yàlla moo peeg lépp lépp yàlla da koo peegi xam-xam yàlla boroom xam-xam la moom dong moo xam moo tax lu mu def da ngay xam ne kii ki ko def dafa am xam-xam xool leen asamaan da ngay xam ne kii cuune dafa ko oto di la romb di daw nga ki liggéey oto bi cuune la yow mi yaa cuune avion romb la dinaaw nga li lii ki ko defar kii ki xamul dara yow mi yaa xamul dara nga taxaw xool géej xool ni mu ngandee yàlla ne man maa ko defar ba pare maa leen ko tàggatal su ngeen ci tegee birig mu diig gaal bu yenu ay avion di yenu ay conteneur di tëmb ci kaw te boo ci tegee birig mu diig ku wedd li ma wax léegi buñ bul ndogu jëlal birig nga dem ba géej nga dugal ko day diig dootoo ko gisati gaal bato bu yenu ay conteneur ay aviation guerre ah yenn saa yi ñu tudde ko lan kenn du tudd bato nan lay tudd ah yenn saa yi mu tudd yenn saa yi mu tudd yenn saa yi mu tudd yooyu yëpp boo leen boolee ci kaw géej gi lay tëb saxara lakum albahra yàlla nee na maa leen tàggatal géej bàyyil géej géej àdduna la bàyyil géej xoolal ngelaw li ah yàlla tàggat ko wa saxara lakum riyaaxa xoolal ngelaw li li mu ñuy jëriñ fi mu nekk dañu bëri yaakaar nañ ne boo ne ngelaw lu muy jëriñ ñu ne nooyi pour ñoom nooyi rek yu bëri nooyi lañ jàpp ah mooy ngelaw ñu ne nooyi point final. Allah loolu ci gën a tuuti boobu mooy bi gën a tuuti bi ñu ngelaw di jëriñ bàyyil boobu jëlal jant bi am na ñoo xamante ne boo leen ne jant ñu ne amul njëriñ daf ñuy lakk fekk ñun mënuñu woon dund sans jant bi bi doomu adama mënul woon dund sans jant waxuma leneen li de mais dund bi rek jant bi daf ci participé kon yàlla tabaraka wa taala lépp yàlla da koo peege xam-xam waqad ahaata bi kulli shay'in ilma wala du loolaay bi wax qad ahaata bi kulli shay'in ilma lépp yàlla da kaa wëri ndomba xam-xam yàlla ci moom amul lu mu def te xam-xam nekk ci ma jox leen beneen bi gën a tuuti gën a salte ci àdduna te yàlla bind ko mooy loolu ñu naan joxlaan ci arab olof naan ko mbërëŋaan xam nga lu tax yàlla bind ko ah ah xam nga lu tax yàlla bind mbërëŋaan day nettoyage si suuf si day setal suuf doomu aadama day ñëw dem àll ba fu amul duus pare bàyyi ko fa mu jalu yàlla déclenché gunóor yi ñëw di ko tibb ay dank di ko bërëng gas ba mu xóot suul ko boo toogee 24 heures nga jaaraat doo ko fekk loolu rek la leen yàlla bindee ñuy bale suuf si comme ni mu amee ñi ngeen jël Sénégal ñu jàll yaar ci mbedd yi di bale di dindi salte bi noonu la yàlla bindalee defaral la gunóor yoo xamante ne dañuy ñëw di bale suuf si yàlla amul lu mu def hasard loo gis ci suuf si yow yaa xamul lu muy jëriñ mais am na lu muy jëriñ loo gis ci suuf am na lu muy jëriñ yow yaa xamul lan la yàlla lépp ci xam-xam la ko def lépp ci xam-xam moo tax mu ne alam taalam xanaa xamu leen xanaa jàngu leen déggu leen anna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir alam taalam xanaa jàngu leen xamu leen anna allaha yàlla lahu ñeel na ko mulku samawaati nguurub asamaan wal ard ak nguurub suuf gouvernement boo mës a gis ci kaw suuf borom di bàkku di daan di daw di daagu bis a ngi ñëw nguur googu këpp këpp wama usni mubarak minkum bi baid wama husni mubarak minkum bi baid wama ben ali minkum bi baid ila axiri wama abdallah ben saleh minkum bi baid nguur xoolal nguur yi yàlla dong la nguuram dul jeex nguur yàlla moo ko moom lahu mulku samawaat qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha gis nga ku ku nguuru rek yàlla moo la coppitil ferñeent ci nguuram daal lay may nga nguuru te nag yow sa bos day jeex moom bosam du jeex buur yëpp bisa ngi ñëw yàlla mu ne aynal muluk ñëpp ne teg aynal muluk ñëpp ne teg yàlla ne li ma lil mulkul yawm ñëpp ne teg mu ne lillahi wahidul qahar ana buur yi kenn du tontu yàlla rek muy buur fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma ala maat allahu akbar fa kam min malikin ñaata yoon ngay gis buur ñu koy yëkkati di ko takkal ay garaat di ko takkal ay garaat ordre na xawma na lion national ordre de mérite ordre di ordre de ordre di ba ñaari mbagg yi fees après dee ndeysaan ana ordre yi ah ndeysaan day dee rek dee fa kam min malikin rufi at lahu ala maat fa lamma ala maat yàlla rek mooy buur loolu dafa war a leer suñu bopp alam taalam xanaa xamuleen xanaa xamoo xanaa jàngoo xanaa déggoo ñu ne la anna allaha naka buur bi tudd yàlla tabaraka wa taala lahu moom dong moo moom mulku samawaati nguuru asamaan asamaan bul yaakaar ne am na ko fa nekk ku dul yàlla suuf si bul yaakaar ne am na ku ko moom ku dul yàlla yaakaar naa gars yi li ñuy jay kilifa yi ak di leen tàgg musugu leen dégg ku ne maa moom asamaan di nga dégg ñu ne di way borom jamono di ko way ci rajo yi diw mooy borom jamono diw mooy naa am mu am waaye diwa moom asamaan boo ko waxee léegi xale ndaw yi ne la da ngay fen boo demoon léegi sa kër ne sa doom man maa moom asamaan mu ne la ay pa ragal yàlla boo ko waxoon xale liir maa moom suuf si mu ne la ragal yàlla kon yàlla allah subhanahu wa taala ne yàlla daf ñuy woon kattanam kàttanu yàlla ak màggaayam tabaraka wa taala pour lan pour ñu am tawxid pour sunu aqida mën a dëgër nekk raasix sax ci sunu xol yi ñu xam ne yàlla mooy yàlla sayid xawa rahimahullah dafay wax wax naa leen ko ba sonn bi ñu commencé tafsir ba léegi nee na bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aaya yi fu muy finwee an allah ala kulli cheyin qadir yàlla nee na maa mën lépp boo ko déggee nga xam ne yow kii sa buur amul lu mu tële anna allaha lahu mulku samawati wal ard boo ko déggee yàlla nee na maa moom asamaan ak suuf nga xam kon yow sa buur du buur bu ndaw gis nga gars yi bi ñuy jay seen kilifa yi naan ay yàlla lañ yàlla dafa wax ci alxuraan aaya bu doy waar boo xam ne su ko adduna bi yëpp déggoon ñëpp am tawxid in allazina tad'una min dunillah lan yaxluqu zubaban walaw ijtamaau lahu ñi ngeen yaakaar naan ay yàlla lañ wala ñoom mën nañ dara yàlla mu ne binduñu weñ ñoom ñëpp bu ñu dajaloo mënuñu defar weñ weñ bi naaw yàlla nee na kenn mënu ko defar Sénégal ñaata million lañ ah 13 millions soo boolee Sénégal yëpp mënuñu defar weñ Sénégal laa yema weñ weñ yi di naaw nii ah am ay la wala mun ngeen ko defar mun ngeen defar yow mbelantaan nag mun leen ko defar te mun leen ko fee jëli pomp ngeen ba sonn puudar ngeen ba sonn yooyaa ngi dinaaw da ngay yendoo puudar sa néeg takk sànke bu guddee am yoo bu ñëw sa nopp ne la merde ñoo ngi fi ba léegi nga defe ne dafa ne von fekk dafa la ne merde ñoo ngi fi ba léegi mënu doon dara nga naan ak démb ni ma pompé subhanallah xaw ma yow bi nu mu jaar ba dugg ci sànq bi yàlla daf lay wax ne mënu adduna bi moo moo ko kaña yaa ngi fi wax naa ko léegi waa Grand Yoff man ne benn waay ni ma Grand Yoff kaña kesa la kaña yi mun leen leen jële Sénégal wala mun ngeen ko posona ngeen ut ngeen ay fiir weñ rëy ngeen ba sonn dara parce que yàlla moo leen fi indi mun leen ko fee jële day gis waa ju dëkk ci étage karole tout partout biir ak biti def lu nekk boo toogee nga gis weñ buy naaw ci biir saal bi wala wala nga jékki-jékki nga gis benn mbelentaan buy dox ci biir biir néeg bi wala yeneen saa yi sax nga toog ci foto yi fel màtt la mun leen ko fay jële ci biir wax naa ko sànq gars yi ci biir kaaba gi laa toog di jàng alxuraan rek benn muus romb ma benn muus muus laa leen wax de muus naan nii sàppe yi nii nii lay def nit ñi nii nii comme nit ñi ni ñu toogee fu mu gis espace rek jaar di def nii ci keroog laa tiit keroog laa waaru muus waxuma leen ci biti de ci biir muus ah ma ne lii nag moom mooy mooy fii nag mooy terminus muus di jaxasoog ay nit kenn du ko laal muus mi dox ba mu neex ko daal di teer ci sallaaje yi ñuy naanee zam-zam muus mi tëdd gaa yi tegal ko kopp kopp zam-zam muy naan dina la wàcc kanam muus mi naan zam-zam ndeysaan yàlla moom moom lépp anna laa ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in ilma xam-xam yàlla ci yàlla la tàmbale ci yàlla la la jeexe yéen tuuti ngeen am ci xam-xam tuuti tuuti lañ yàlla may ñi defar avion yeeg ñi defar bato yeeg ñi defar bombe atomique ak ñoom ñëpp tuuti xam-xam lañ am wa ma utitum min al ilmi illa qalilan te gis ngeen li tax yàlla mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi ah al ulama xam ñu tax yàlla waloon mooy nit ki bala muy am iman dëgg dëgg dëgg am tawxid dëgg mu am xam-xam ndax xam-xam moo koy yóbbu ci lu mu ragale yàlla moo tax yàlla mu ne ñi ma ragal dëgg mooy borom xam-xam yi parce que dañuy dugg ci leen dañ xam ne lii yàlla moo ko mën kenn mënu ko moo tax yàlla chaque jour daf ñuy wax ne seen bopp wa fii anfusikum afala tubsirun yéen sax bu ngeen xoolee seen bopp ngeen xam ne ki leen defar ko am xam-xam la nopp rek xoolal nopp dafa am ñoo xam ne seen faj yëpp nopp dong la ñuy jàng bu sa bopp bu sa bopp di métti mënuñ ci dara bu sa bët di métti mënuñ ci dara sa bëñ di métti mënuñ ci dara soo waxee ñu ne la ñun ñun nopp rek la ñuy liggéey nopp am na koo xam ne bët kese lay liggéey moom bu tànkee di métti yoonam nekku ci am na koo xam ne bëy bëy bëy kese bëy kese muy liggéey am na koo xam ne der der kese der bi moom yoonam ci bopp bi yoonam der bi der kese der gis nga ñooñu ñëpp nag boo leen boolee global ci defar loolu ah nopp rek balaa yéen ñiy def médecine ku ci bëgg a def médecine ñaata at ngay jàng médecine sept ans huit ans ngay jàng médecine yenn saa yi nga jàng ba pare fekk benn mbir da nga jàng muy bëñ bëñ sept ans yu bëñ da nga doon jàng bëñ juróom ñaari at bëñ bëñ kese ci nit bëñ nga jàng wala der bi rek nga jàng der kese der lan la der der di der ñu tuddee la lan der lan der ma solo bu dee bëñ ñu tuddee la bu dee bëñ kii def lépp nag jalla jalaalu waase kamaaluhu kon koy yàlla mu ne xam-xam tuuti ngeen ci am mun ngeen xam ne yàlla nee na lu dëggu la xam-xam tuuti ngeen ci am waa ji def bët est-ce que xam na nit lépp ki def nopp est-ce que xam na lépp ki def bëñ xam na lépp sept ans bëñ rek nga doon jàng sept ans bët rek nga doon jàng sept ans der nga doon jàng kon yàlla bu ne tuuti xam te waa ji bët boobu mu la wax wala wala nopp bi su la ko doon leeralal fii yow da ngay yéemu da ngay mucc xool ko ba ngaan naan ndax da ngay yéemu li ci yàlla def yàlla mu bind loolu lépp nag defar ko def ko doomu aadama te yàlla bi mu koy def ci lan la ko defee ndox min ma in mahin ci ndox mu doyati fa jaalnaahu fi qararin makin ila qadarin maalum fa qadarna fa nicma alqadirun allahu akbar jalla jalaaluhu gis nga gis nga alquran wallahi bi ñu réeree alquran lañ lañ ñàkk tawxid lañ ñàkk ngëm yàlla ba fi ñu toog ñu bëri ñu dañuy jàng alquran waaye dégguñu ko li moo taxoon saxaaba yi raw ñu lii moo taxoon yonent bi raw nu keroog bañ laajee yaay Aïcha yaay Aïcha yonent bi lan moo doon dundam lan moo doon jikkoom mu ne kaana xuluquhul quran ku dégg xam ko moo tax mu jàllale message bi ñun dégguñu ko dégguñu ko islam diine xam-xam la ku xamul bokkoo baat bi si njëkk a wàcc lan la wax iqra tey bu ñu xool ci àdduna bi ñoom ñoo gën a taar ci àdduna bi jullit yi ñoo gën a taar la ci àdduna bi te xoolal ñu yor téere xam-xam lii ma leen di wax nii yëpp xam-xam la tey bu duggee ci aaye yi di gis yàlla nu mu defaree planète yi biddiw yi jant bi weer yi suuf si ndox mi géej gi dex yi jën yi garab yi montagne yi amul lu yàlla bàyyi ci alquran te lépp ay nit dañ koy jàng ku nekk génn ci bàcce am na ñoo xam ne ne ay montagne rek lañuy jàng wala seen dund yëpp ay montagne am ñoo xam ne seen dund yëpp géej la am ñoo xam ne seen dund yëpp lan la garab yi am ñoo xam ne seen dund yëpp lan la ndox wala yàlla bi di loolu lépp tënk ko indil ñu ko ci alquran ñun ba léegi dégg ko ay tubaab ak ay yëwut ay nasaraan gën ñu koo dégg te mu nekk suñu téere Zindani rahi Zindani boroom xam-xam bu mag la mi ngi yemen ci téere boobu tudd innahul haq ngeen koy wax ci français ceci la vérité téere bi innahul haq la tudd dañ ci gis ay boroom xam-xam yoo xam ne daf leen invité ay anglais ay allemand ay indien am na ci koo xam ne xam nga lu mu tuubee mooy aaya boobu yàlla naan kullamaa nadijat juluuduhum aaya boobu moo ko dubloo daf lay bàyyi nga yuux ba sonn wax ba sonn mu ne la pare nga ni waaw mun su li yàlla woon ko septième siècle mu ngi ne ci aaya sàngam mu ngi nii te lu yéeme mooy Muhammad mi ko yàlla doon wàcce ban université la doon jàngee ñan ñoo ko doon formé yow mi génn université Cheikh Anta Diop ñaata professeur ñoo la formé am na fi ku génn université Cheikh Anta Diop fii ci jàkk jumaa fi ñu toog ah yow ñaata professeur ñoo la doon jàngal waaw bi ngay commencé léegi nag limal bi ngay dem jardin ba ba ngay dem école primaire ba ngay dem CM di dem lycée di dem université di dem lycée jóge fa dem lycée dem université ñoo ñëpp boo leen tënkee ñaata nit ñoo la jàngal ku jàngal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn professeur muy wax loo xam ne prof yi mënuñu ko dindi prof yooyu yëpp jàngale loolu mënuñu ko dindi moom koy alxuraan mooy téere xam-xam man araada dunya fa alayhi bil ilmi wa man araada al axira fa alayhi bil ilmi wa man araadahuma maan fa alayhi bil ilmi wa man araada al ilmi fa alayhi bil quran ku bëgg aduna dañuy jàngal jardin suñu élève ku bëgg aduna demal uti xam-xam ku bëgg alaxira demal uti xam-xam ku bëgg xam-xam nag demal jàngi alquran dem leen jàngi alquran loolu leen jàngal suñu waa jardin ñu koy woy alquran muy téere xam-xam yàlla tabaraka wa taala alam taalam xanaa xam anna allah yàlla tabaraka wa taala du làmbatu de lu mu def noonu la moom yàlla lahu ñeel na ko mulku samawaati nguuru asamaan asamaan bi ngeen di dégg su ko américains yi moomoon kon dem nañ yéeg ci kaw sotti ñu ay bomb bu yàgg naxoon nañ ñu fi sax dem ba ci kaw daal di fay samp seen drapeau xoolal loolu kañ la kañ la ko américains yi defoon dem ci kaw samp seen drapeau daal ne ñoom dem nañ ci weer yi léegi léegi la gars yi doog a trouvé ne dañuy fen ndax lu tax science dafa démontré ne ak drapeau bi da doon naawat foofu amul ngelaw drapeau bi naan nii gars yi léegi lañ démontré ne foofu amul ngelaw drapeau buñ ko fa sampee mënul naaw ndeke montage la woon nit ñaa ngi koy doog a xam sànn lañ fa demoon ne samp nañ fa drapeau nit ñaa ngi doog a trouvé yàggul dara ne ndekki foofu amul ngelaw kon drapeau bu doon naaw nit ñi di ko gis fan lañ ko sampoon gis nga subhanahu wa taala moom yàlla moom moom asamaan asamaan yàlla moo ko moom kenn moomu ko ku dul moom moom yàlla ni mu moomee asamaan noonu la moomee suuf gis nga baat yi lépp ci alquran da ngay fekk yàlla di wax xalaqa samawati wal ard chaque jour li ëpp ci aay wala genn wàllu aay yëpp wala yëpp asamaan la yàlla di jiital ak suuf chaque jour yàlla asamaan lay jiital loolu xikma bu rëy moo ci nekk ak xereñ bu rëy ventilateur bi ki ko doon monté fan la taxaw di ko monté ah ku wax ci kaw
seel la taxaw fii ci sama kanam ak ay bàq ak ay taal seel bi fan la ko samp taal ci suuf ci suuf ki doon defar terrasse bi nag fan la taxaw ki doon peinture ki doon defar lampe bi seel la taxaw ñoom ñëpp ci suuf yàlla bi muy dem asamaan fu mu nekk boobu asamaan suuf amul xalaqa samawaat wal ard ñuy won ne moom mooy borom kàttan bi bi muy defar kaw kaw la nekk di defar kaw yéen kii defar kaw fooy nekk ci suuf allahu akbar kooku moo leen di wane kii daa am doole nekk ci kaw di defar kaw ba pare téye kaw ba kaw daanuwul suñu kaw wala yàlla nee na maa téye asamaan bi su ma ko téyewul mu daanu seen kaw yàlla laa taaxuzuhu sinatu gis nga aaya bu mu gonte lahu maa fi samawaat maa fi ard subhanahu wa taala daf ñuy won ak xereñam ak dooleem ak kàttanam ak mën-mën ne moom li muy def xel gëlëm na ci trouvé ko résultat bi doomu aadama tuuti na ci def genn wàllu lu mel noonu ñun ñëpp bu ñuy liggéey ci suuf la ñuy nekk di defar liggéey ci kaw yàlla moom bi muy defar ci kaw ci kaw la nekk di liggéey ci kaw bi kaw paree mu doog a jublu ci suuf subhanahu wa taala خلق السماوات والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض xoolum teg ci aaya bi mu ne wama lakum amu leen amu leen de min dunillahi keneen ku dul yàlla min waliyin ku ngeen war a faral wala nasirin ku leen di dimbali amu leen de yéen julit yi wama lakum amu leen gis nga alam taalam istifham bi li taqdir la yàlla rek mooy borom kàttan istifham li taqdir li taqrir yàlla day saxal ne lii moom dong moo ko mën subhanahu wa taala istifham li taqrir saxal ne lii yàlla kenn mënu ko ku dul yàlla alam taalam an allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amuleen min dunillahi keneen ku dul yàlla min waliyin xaafisin ku leen di protéger yaxfazukum mu leen di wattu yatawalla umurakum muy méngoo seen mbir amuleen amuleen kenn ci kaw suuf kuy méngoo seen mbir amuleen mbokk yi loolu moo tax jullit ñi bu ñu xamoon ne wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir kon dañuy am lu ñu ku ñu protéger kon dañuy xam ne yàlla moom comme moom la ñu daal di nekk ci ginnaawam ñu nangu ndigalam def ay santaaneem daal di wali sori tereem moom yàlla tabaraka wa taala wala nee na bi mu waxee lii ba pare wan leen dooleem wan leen kàttanam bu mu mën ba pare mu ne wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir wa ma lakum amu leen ci kaw asamaan wa ma lakum amu leen fii ci kaw suuf min dunillahi keneen ku dul yàlla min waliyin ku ngeen war a féeteel ku leen di protéger amu leen julli ñi dañoo am ku leen protéger ci kaw suuf ku dul yàlla ci kaw asamaan dañ fa am kenn ku ñuy protéger ku dul yàlla kon bu ñu gëmee jàng yàlla tabaraka wa taala moo ñuy aar moo ñuy protéger moo ñuy defal lépp kon lu ñu war kon yàlla moomu ñu farag moom yàlla moomu ñu dégg ay mbiram daa di def ay santaaneem daa di sori ay tereem kon lu ñu wax rek ci def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi borom bi tabaraka wa taala mu ne waaw am li wóor tey mbir turiduna ndax yéen da ngeen a bëgg an tas alu ngeen laaj rasulakum seen yonent kama suila comme ni ñu laaje woon waa banu israil Moussa Moussa min qablu lu jiitu yonent yéen da ngeen koy bëgg a nekk di laaj yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ko rey ak ay laaj yu bëree bëri nasir mooy nasirun yadfau ankum al makruh yéen jullit ñi amu leen ku leen di protéger amu leen ku leen di dimbali ku dul yàlla kon ngeen war ci dégg yàlla mooy ku leen di dimbali yàlla mooy ku leen di protéger gis ngeen baatu wali baatu wali da ngay dégg ñu ne ceerno samba ko wali yi tukulóor yi loolu la ñuy wax ceerno samba ko wali yi wala olof fii ne sëñ muudu wali yu la tubaab nu muy waxee wali wali ah arab nu muy waxee wali baat bi foo gis wali lay wali wali wali wali wali wali wali am na lu muy tekki seytaane sax wali yu la yàlla bu nekkee wali seytaane bëgg nekk wali yu yow nga nekk wali yu kilifa gi bëgg nekk wali yu kon wali yu am na lu muy tekki allahu waliyu lezina amanu wala loolu doo alquran wallezina kafaru awliyaahum taaxut gis nga kon am na lu muy tekki yàlla mënu nekk fe wali yu lisina amul seytaane nekk fi wali yu lisina kafaru yow nga bëgg a nekk wali mais xam nga fii dafa bay baat yoo xam ne ci Sénégal baat yi duñ ko firi nit ñi di ko ngandal te du dara wali yu ci la bokk muqaddam ci la bokk cheikh ci la bokk shérif ci la bokk ak lan ak lan ah addiye addiye cheikh mooy la màgge te da nga dégg ñu ne cheikh diw nga defe ne lu rëy la ñu wax du dara cheikh mooy màgger rek wala ñu ne sëriñ jeex na loolu nga koy rëy waliyu mooy ku ku méngoo dara ku jiite dara kuy aar dara borom kër gi waliyu la mooy aar kër gi imam bi waliyu la ci jàkka ji chef de quartier waliyu la ci quartier bi président waliyu la ci dëkk bi allah nag waliyu lazina amanu cheytaan wallazina kafaru awliyaahum taaxut yaa ngeen taaxut bi ci njëkk mooy cheytaan mooy principal bi juróom la ci président mooy cheytaan kon boobu loolu mooy baati waliyu muqaddam mooy lan mooy ku jiite dara isa isa kaana hunaka muqaddam la budda an yakuna mu axar saa yoo gisee ñu ne diw ku jiitu la saa yoo gisee ñu ne ku jiitu kon am na ku mujje muqaddam mooy ku jiite ku jiite dara loolu de def nañ la muqaddam wala Sénégal nag ñëpp ba sax ndeysaan ñi fi nekkoon yal na leen yàlla yërëm yokk seeni mbaax ndax ndeysaan ñoom buñ jàngaloon nit jàngal la diine ba nga ba ñu yaakaar na yow peeg nga dara ci diine ji dañ lay wax demal sa dëkk def nañ la foofu muqaddam wala def nañ def nañ la fa cheikh demal nga jàngal waa dëkk wu nga ñëw daal di samp daara commencé jàngale alquran ñu ne cheikhal nañ la wala muqaddamal nañ la te yéen Sénégal yéen cheikh ngeen am cheikhu mbër cheikhu musique cheikhu rappeur ay cheikhi rastaman ah loolu laa fi gisam gis naa fi mbër mu ñu seexal mbër mu ñu seexal moom lan la war a jàngale ndeysaan gis naa fi ab rastamaan bu ñu seexal gis naa fi jigéen woykat bu ñu seexal ndeysaan allahu akbar ay politiciens yu ñuy seexal ñoo xam ne faatiha sax fanaanul seen bopp yi ñu leen di seexal loolu moo leen na seex amul njëriñ fu mbër nekk seex rappeur nekk seex sëmbkat nekk seex sindat nekk seex nga ne seex amatul valeur ah loolu bu njëkk ba nag amoon na valeur ni di seexal fii mooy ñëw di jàngale alxuraan ci juum ku bëgg masala ci alxuraan boo ñëwee laaj ko mu tontu ku bëgg masala ci fiqh boo ñëwee laaj ko mu jox war nga doon dégg ñu naan Cheikh Omar Fouti kon Cheikh am na njëriñ waroon nga dégg ñu naan Cheikh Ahmadou Bamba boobu Cheikh am na njëriñ tafsir amoon na njëriñ boobu loo jàng ba nga génn ci loolu tur boobu lañ lay tuddee boo tuddee boo tafsiree ñu ne tafsir boo taalifee téere ñu ne alfa boo nekkee imaam ñu ne almaami nga ne almaami Abdul Qadir Kan almaami ah boo nekkee sëriñ di jàngale ñu ne Ceerno Suleymaan Baal te ñooñu sariya lañ daan àtte boobu jaasi moo fi nekkoon ku def dara ñu dóor la ku moy ñu taw waaye nasaraani bi ñu ñëwee Afrique lañ jàpp sëñ cëpp tëj ñenn ñi ñu rey leen am na ñoo xam ne sumbu jun bii lañ leen rey sumbu jun ñu ngeen sumbu jun bii lañ daan yóbbu sëriñ yi di leen rey ndeysaan am na sëriñ yoo xam ne sumbu jun la leen tubaab yi rey ñeneen ñi ñu exilé leen ñeneen ñi ñu ne leen noppi leen ku wax dee ñu noppi pour wax leen ne Sénégal dëkk lislaam la woon moom la mu sa nekk waaye dañ koo yàq Pire la université islam bi mu ngi woon Pire tubaab yi bi ñu ñëwee dañu koo taal ba fii may wax ak yéen fii ma toog nii bu ngeen demee dañ ñoo samp bant fi ñu defoon université bi dañ faa samp bant loolu la ñu ne la fii la ñoo taal université bi jàpp téere yi sànni di ko ci biir géej comme li ñu defoon Irak rek di fa anglais yi duggee
li ñu jël ci ay téere l'islam yàq ko boroom xam-xam yi nee nañ bi ñu ko sànnee ci géej gi géej gi dafa vert ndax encre téere yi ndax bari bu mu bari yenn téere yi ñu jël ko ñoom dem traduire ko jàng ko am xam-xam bi gis nga ñëwaat gis nga ci médecine ci kan lañ ko jëlee médecine Ibn Sina moom la ñuy tuddee naan pavillon Avicenne ngay dégg nga Avicenne naan tubaab la fekk Ibn Sina la du Avicenne Gibraltar bi ngeen di dégg du Gibraltar de jabalu taarix la taarix Ibn Ziyad ak kan def na beneen borom xam-xam sama bu mag bu ñu waxee Ibn Sina def na kooku lañ ko tuddee tubaab bi lañ koy tuddee Ibn Rushd ah gis nga ñooñu ñëpp ay jullit lañu mais tey dañ leen a nëbb ba jullit buy buy liir day defa ne ñii lii tubaab yi yëpp parce que xam-xamu lislaam lañ jël dem tra même un deux trois quatre yi ngeen di gis ci montre yi tiim na titre titre arabe la woon dañ koo sàcc yóbbu ko arabe yi dem créé waat waahid isna yi salaat ñu livre arabe la woon i compte arabe la woon jàng leen histoire mbokk yi dégg nga yooyu da nga gis ni ci jullit yi lañ ko jëlee jullit yi ñoo ko doon jàngale ñoo ko njëkk a trouvé ci àdduna di leen yaakaar ne jullit ñi dañoo yaakaaraloon ci àdduna non non xoolal xandak keroog ba ñuy gas xandak di ahzab di attaqué yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mais stratégie yooyu xoolal keroog Badr bi ñuy xeex ak yéeféer yi dañoo njëkk ci teen yi naan denc ndox takk teen yi yéeféer yi bu ñu ñëwee dara lu ñu xeex ndax dañoo mar xam-xam yooyu xalaat yooyu xel yooyu su tax tey jullit yi ñàkk ko te dañoo yaakaaral seen diin keddange yàlla moo ko moom walillahi la izzatu la wax wa li rasulihi wa li man wa lil muminin kon ndeke li imaamu malik imaamu daaril hijri di wax li baaxaloon xeet wu njëkk wa mooy baaxal xeet wii xeet wii bu ñu buggee baax nañu xool li baaxaloon xeet wu njëkk ñu daa di baax yàlla tabaraka wa taala mu ne yéen jullit am turiiduuna ndax da ngeen a namm da ngeen a bëgg an tasalu rasulakum ngeen laaj seen yonent kama su ila Moussa comme li ñu laajoon Moussa démb bokk na ci yahuud yi li ñu laajoon Moussa mooy won yàlla arina allaha jahratan won yàlla allahu ba yahud yi ne Moussa won ñu yàlla lan moo leen dal yàlla mu ne benn xaaculaaya yónni seen kaw rek ñoom ñoom ñu daal di faat kon yéen jullit yi bu leen laaj seen yonent comme li waa banu Israila laajoon bu leen ko def de mbokk yi allah subhanahu wa taala mi ngi jàngal jullit ñi ci aaya bii lan la ñuy jàngal ak di ñu mooy tondikuloo adamu tasaabu alkafirin muy balaa ñuy nuru yéete yi di laaj-laaj yu bari am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl ndax da ngeen a bëgg a laaj seenub yonent comme ni waa banu israil laaja woon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan lañ ko waxoon ñu ne ko wonnu yàlla ñuy wax ak yàlla di wax ak ñoom wax ji neex ñu ne ko wonnu yàlla ah kay nag waxuma la ñu laaj loolu yonent bi mais am na ci Sénégal ay jullit yuy wone yàlla wala léegi-léegi ñu may ñëw maag benn mbokk dañoo romb benn baas mu ne ma baas bi léegi ñuy wone yàlla ñoo fi nekk yàlla lu ko nit bi gisee ci ngeen ma gisee nii mun ngeen maa nett ngeen nettali nu ma mel de ah su ñu waxoon leen waxoon léegi oustaz bi nu mel da ngeen may nettali du ngeen ko nettali am na ci yéen ñoo xam ne xam naa leen bu ñu leen waxoon ñii ñan la nañ leen nettali dama leen di nettali nii lañ mel xam nga lu tax lu tax parce que da ngaa gis nit ki wala da ngaa gis place bi ci léegi nii xam nga place sàngam nga ne waa xam naa ko gën xamu daa nga xam ko ah da nga faa dem gis ko mën ko teg tare yàlla nag mën na ba nga mën koo nekkal fa kullu ma xatara bi baalik fallahu bi xiyaati zalik saa yi sa xel ak sa xol xalaatee ne yàlla nii la mel yàlla mu ngi ci ginnaaw loolu lan mooy dalil bi laysa ka mislihi laysa ka mislihi yàlla nee na man nuróowuma ak dara kon noo koy gise allahu nuuru samawati wal ard noo koy gise nan ngay gise yàlla wax ji waa banu israil ñoo ko waxoon yonent seen yonent Musaa ñu ne ko wan nu yàlla yàlla tere loolu jullit yi ci alquran balaa ñu koy wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu leen ko laaj laaj yu bari yonent dañu tere sax kasaratu sual laaj laaj yu bari dañu ko tere même dañuy tere kasaratu xiila wa qaal yonent bi saa sallam nee na aj màkk yàlla farataal na ci yéen ngeen aji benn waaye ne ñaata yoon yonent bi ne yàlla farataal na ci yéen aj benn waaye ne ñaata yoon ba wax ji baree lan la wax mu ne benn yoon ñu wax ba fàtte yonent bi ne su ma leen waxatee benn mbir dem leen defi ko dem leen def bi ma ne ñaata yoon bu ma ne woon juróom la wala ma ne fukk la rek ñu suba dal leen di ngeen ko bëgg mu tëleen ci wala di nekk ñun ñëpp ñu bëggee aj su ko yomb na ci ñun tey nag bu ñu ñëwoon farata la ñaar fukki yoon ci yéen ci njëm benn bi rek mu ñu tëj benn bi mu ñu mu ñu benn bi mu ñu ah ñu bëgg nañu fukki yoon ci njëm kon bu leen bu leen di laaj seenub yonent comme waa banu Israil nu ñu doon laajee Muusaa ci mbir yi nga xam ne ay kumpa la wa huwa tawbiixun lii xaste la li man talaba rasul sallallahu alayhi wa sallam bi umurin laysa fi miknatihi lii laa jëna loo xam ne nekkul ci mbaggam nekkul ci mën-mënam moom mënu ko wa ilaami bi annahu man yajri ala uslubi taanati wala ñu jël yenn façon yenn système yenn melokaan yi nga xam ne ci yeneen yonent la woon wala yeneen xeet la woon ñu jële ko ci ñooñu bëgg koo indi ci lislaam léeg-léeg nga dégg ku ne non xudar dafa génnoon ci sharia Muusa man su ma neexee ma génn ci sharia Muhammad ku génn ci sharia Muhammad yéeféer ngay nekk xam ngeen xudar dafa génnoon ci sharia Muusa bënn na gaal jubanti niir rey nit te loolu daa raamoon ci sharia Muusa moom mu def ko amul bàkkaar ñun nag suñu diine ji sàngara da araam bépp nit bu la nee noonu naanal balaa muy egg sa put ma sotti ko meew day fen lu ñu koy naan ñu naan leen ñun suñu sëriñ da koy sotti meew wala da koy wàññee leer su dëgg da koy wàññee leer leer gi bëri quoi muy wàññi leer wala ay sànni leer ban leer nga koy wàññee ban leer ban leer moo bëri nañ wax caaxaan kese la yooyu noonu mbir yu mel noonu la yàlla di tere am turiduuna an tasalu rasulakum kama suila Muusa min qabl yàlla mu nañu bu leen nuroog ñooñu bu leen jaar sax ci seen yoon bu leen jël seen melokaan kon kat su boobaa seen xol yi jéng-jéng def cee dugg su boobaa di ngeen di weddi yàlla tabaraka wa taala te weddi yàlla moom ab yéeféer moo koy def jullit du ko def subhaanahu wa taala sunu borom mu ne wa man yata wa man yatabaddal wa man yatabaddalil kufra bil imaani képp ku jël kéeféer watte ko ngëm yàlla imaan a ngi nii kufr mu ngi nii ñaar a ngi nii wa man yatabaddal ak tabdil mooy changé changé mooy sob baatu tabdil jàngeen yàlla mu ne laa tabdila li xalqillah wala li kalimatillah bind yàlla kenn du ko changé baati yàlla kenn du ko changé baati tabdil mooy soppi ko changé ko wa man yatabaddalil kufra képp ku jël ak kéeféer nga watte ko lan bil imaan yi ngëm yàlla faqad dalla kooku sànku na kooku réer na sawa ak sabil dëgg dëgg yoon bu baax sawa mooy digg digg yoon ak sabil mooy yoon sawa mooy digg yoon bi fan moo ci gën a baax mooy digg yoon bi saa yoo jëlee kufru bàyyi ngëm yàlla jaar nga cay mbooy mbooy ga bàyyi nga digg yoon bu leer bi ndax lislaam yoon wu leer la yonent bi ne na taraktu fiikum mahajatun baydaa leyluha ka nahaariha laa yaziigu anha mahajatun baydaa boobu ngay dégg autoroute la bu leer nan mu ne leyluha ka nahaariha guddi gaa ngi mel ni bëccëg ndax ay projecteur yu leer kenn du ko wàcc rek lu dul ko àll laa yaziigu anha illa xaalis mu ne wa man yatabaddalil kufra bil iman képp ku jël kufr allahu akbar nga bàyyi ngëm yàlla ngëm a ngi nii kufur mu ngi nii weddi yàllaa ngi nii ngëm yàllaa ngi nii ñu ne la tànnal benn allahu akbar nga gis waa ji daan ne non léegi naa ci Sénégal ay nit ñi ne safara moo gën a neex àjjana du xumb parce que ñoom Michael Jackson ak ñoom Bob Marley safara la ñu nekk di tëgg ay soirée xam nga loolu dëgg-dëgg boo ko déggee doomu aadama wax nan ndax artiste yi yëpp safara lañ jëm boobu mooy gën a xumbi boobu mooy gën a neex xam nga doomu aadama bu waxee loolu dëgg dëgg kon yàlla mu ne faqad dalla sawaa as-sabil kon yàlla wax na dëgg la nga dégg ñooñu kàccoor yi ñooy wax loolu boo ñëwee ci ñu ne dañoo am diine man bu ma duggee aljanna gis ma ko diw damay génn man diw bu duggee safara ma dugg safara wala diw bu waroon dem safara man dinaa ko ne toogal ma demal la safara man loolu ko déggee ñu gox ko rek faqat dal la kooku sànku la dal la allah baatu dal la ngeen ko bëggoon jiri sax day nekk ak ngeen sànku te su sànku koo xam ne sànku te bi ci génn ba yowmal qiyaamat kooku mooy dal la mooy koo xam ne réer bi mu réer kenn mënatu ko dugal jàng ngeen yonente bu daan xutba xutbatu xaaji lu muy wax man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala haadiya wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida ku yàlla réeral ku yàlla fan kenn mënatul fexe ba dugg moo tax dalaal baaxul tey nag dalaal bëri na ay façon la am na ñoo am yenn sànq mooy loolu ñu tuddee bëri am na ñoo xam ne leen sànq mooy loolu ñu tuddee musique am na ñoo xam ne leen sànq mooy loolu ñu tuddee moom am na ñoo xam ne leen sànq mooy cirque am na ñoo xam ne leen sànq mooy bidaa façon façon dalaal yi dafa bëri yépp nag boo ko boolee yépp boo ko boolee mu nekk kufr fara yonente bi ne al kufr millatun waahida weddi yàlla yépp benn façon la fu muy teere rek nga weddi yàlla moo tax doomu aadama buur bu toll na yàlla teg njubam nga bàyyi njub bi dem jël réer dem jël kufr bi yow sànq nga inna hadaynaahu sabil wan naa la ñaari yoon inna hadaynaahu man yàlla jubal naa ko assabil yoon yàlla mu ne wahadaynaahu najadayni wan naa ko ñaari yoon ma ne ko bii moo jëm aljanna bii moo jëm safara wahadaynaahu wan naa doomu aadama an najadayni ñaari yoon moom mooy tànn nag ñu ne ko yoon wi dey mu ngi tudd siraatal mustaqim mu ngi jëm jannat firdaws yoon wi mu ngi jëm jahannama bii ñi fa jaar mooy ñoo ñu tuddee al mu'miniin yoon bi ñi fa jaar mooy ñoo ñu tudd al kaafiruun yow nga nekk jullit ban yoon nga war a tànn yoonu iman kon lan moo tax tey ñu jël yoonu kufru ñun te ñu xam ne yii tey tere dem jaam ñi ci yàlla yépp kufru la su muy teere yow mooy weddi yàlla bibi fan lay teere ñun ci weddi yàlla tere laa jaamu yàlla da ngay gis ay nit nekk ci di déglu midi julli jot ñu bañ a julli waaye xoolal midi bi lu fa nekk lu fa nekk mooy njaaloo ak sàngara ak sutteeku def yaramu neen ak sirk ak jëf jëf yu bon këbal boobu duggal ci dundinu dëkk bi ci xew-xew yi ñu xewal def ko monde tey ci àdduna bi ñëpp jóg daw jëm ñëpp fan lay téereeg ñi mooy ci weddi yàlla tabaraka wa taala wa man yatabaddali l kufra bil imaani faqad dalla sawaa as sabil képp koo xam ne dangaa bàyyi diine yàlla dangaa bàyyi imaan bàyyi tawxiid bàyyi aqiida bu wér nga dem topp ci shirk topp ci bidaa topp ci ay aada kooku faqad dalla réer na sànku na sawa as-sabil dëgg dëgg yoon bu baax te yoon bu baax bi mooy tawxiid mooy lislaam moom mooy imaan sawa as-sabil mooy wasata tariq mooy digg yoon al amn mooy nga am sécurité min al xuruji ani tariq maanaam ku jaar ci digg yoon bi kooku mënu ci sécurité ban sécurité nga am mooy wàll yi côté yi el yi dara du la xori ci digg yoon bi nga jaar dara du la xori soo déggee waa ji day benn seng moo xotti yéreem fan la jaar dafa borosu dafa borosu sàppaat yi waa ji ne miir bee daanu ci kawam fan la jaar dafa nekk ci suufu balcon bi waaye diggu yoon kenn du nekk ci lu baax lu bon di la ci fay moo tax yàlla bëgg ñu nekk ci diggu yoon diggu yoon bi moom mooy lislaam uddukulu la yàlla wax uddulu uddukulu ci sii bi kaaf li ngeen sóobu yoon sóobu leen yoon waaye gis ngeen yoon yoon bi daa nekk yoon bi daa may dëkk Iblis dafa bàyyi yoonu yàlla ba yàlla rëbb yoonam ne siraatal mustaqim yi Iblis indi ay mbaar yooyu ñu tudd trésor yu ngand yi tant yu ngand yooyu Iblis teg daal di indi ji ay ay frigo ndox yu tedd yu am jus ay robinet façon bii bi tax la bii orange la bii mango la bii guyaab bii indi ay piliyaan yu nooy teg boo doxee ci siraatal mustaqim ba sonn ñaq tooy xepp nga ñëw ñaq bi siit mu ne la foo jëm danga ko mën siraatal mustaqim aljanna laa bëgg balaa may waxal yow ba pare toogal nopp nga toog daal di tànk ci kaas yi benn jox la nga naan ñu ubbi climatiseur yi ñu ëpp la nga nga fiix nga orienté wu waat mu ne la nii moo gën a gaaw nii moo gën a gaaw dafa gudd xanaa yow mosoo fee ñëw ngay indee mu ne bii moo gën a gaaw jaaral ni da ngay yéen di saa salaam rëdd ndeysaan mu ne siraatal mustaqim mi ngi nii ci wetu siraatal mustaqim dafa am ay ñal moo ne yàlla mu ne wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi as-subula jamul wala mufrad la mufrad bi lan la bu leen topp ñal yi ñal wala tattabi as-subula bu leen topp ñal yi ne ñàll yi doo topp rek daal di musi musi ba dal la mais iblis mooy ñëw fexe ba nga jaar foofu ba nga bàyyi yoon yàlla waaye nag yoon wi boo fi jaaree bañ a toog ci keppaaru iblis yooyu bañ a naan ci jiw yi bañ a féexu ci ngelaw loom ngelaw la ngelawam loolu nga bañ cee féexlu ah dangay am tiyaaba dangay am tiyaaba waaye bis boo déggee iblis yóbbu sa nopp bi bis boo déggee iblis ñu ci ba naaru laay def lay dal moo tax yàlla mu ne képp ku bàyyi ngëm yàlla bu dem jël kufri kooku sànq na kenn mënatu ko dara te tey loolu lañ def dañu bàyyi ngëm yàllaa ngi nii lislaam a ngi nii alquran a ngi nii sunnaa ngi nii ñu ñu daal di koy bàyyi ñu daal di topp ñu seen xam soo waxee ñu ne la Sénégal état laïque la kenn mënu see jaamu yàlla ci weeru koor lañ nekk ndeysaan démb benn mbokk ci retoog xama barke démb fii maa ngi moom ak benn waaye ci jumaa ji mu ne ma suñu liggéey benn chrétien la am benn mu ne lu ñu jaaxal mooy chrétien bi duñ ko gis muy létt duñ ko gis muy añ duñ ko gis muy sëf duñ ko gis muy naan ñun jullit ñi ñuy jaaxle ñu ne ko waa yow genre yow lu tax doo lekk mu ne non dama leen di ormal quoi seen weer yi dama koy ormal laa ilaha illa allah ñun boo jaalee yooyu nga fekk ayda wala kumba wala fatima wala xadi ñuy jaay ndéeg ñoom móodoo ñoom suleymaan ak ñoom isaa di ndéeg ak di am ak di tux ci bi ak di naan daan saawaay yaa ngi ci weer woor koor gi wala weer yi mu ne maa ngi ci weer yi wa man yatabaddal il kufra bil imaani faqad dalla sawaa mbokk yi aaya yi ñu doon jàng ñoom ci jëlee ñeenti lu lu njëkk mooy subuutul naf fil quran sax na mais alquran am na ñu ci bind yàlla moo ko man suuxal kama huwa saabit ci sunna comme ni mu saxee ci sunna yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam am loo xamante ne daf ci biir maanaam sax min aaya aw nunsiha naati bi xayri minha aw misliha lu tax anna allah la kulli shay'in qadir kon loolu julli daf ko war a xam naasix ak mansuux benn boroom xam-xam imaam ali dafa ñëw fekk benn waaye muy bayaan ci jàkk bi mu ne ko ndax xam nga naasix ak mansuux mu ne ko déedéet mu ne ko lemal sa téere bi ut ko moo droit bayaan ci suñu jàkk bi kon loolu lu wér la saabit waaye nag ñaar yooyu ñooy balluwaayu islaam mooy alquran ak sunna ñaar yooyu am na naasix ak mansuux amma qiyaas ak ijma naasix ak mansuux mënu cee am ndax yooyu doomu xalaatu doomu aadama la waxi doomu aadama la jégginu texte la bu doomu aadama xalaat yàlla moo wax nga ñëw dégg ci tafsir yonent wax nga dégg ci firi ko loolu mënul am mansuux ak naasix ci alquran ak sunna la naasix ak mansuux am amma qiyaas ak ijma naasix ak mansuux mënu cee am ñaareel mooy raafatullahi taala bilmuminina fi nafsi alaxkaami wa tabdiliha bima huwa naafiun lahum fi dunyahum wa oxrahum suñ ne yàlla dafa changé dara lii dafa amoon yàlla dindi atte bi dañ ko doon atte woo yàlla dindi yàlla indi leneen loolu lu muy tekki mooy yàlla dafa yërëm jaan yi xam ngeen jaan ngeen ci alquran qiyaamul leyli farata la woon yàlla waxoon na yonent bi yaa ayyuhal muzammil illa qalila saaru suratul muzammil bi muy fee yàlla lan la wax alima an sayakuna minkum marda wa axaruna yarribuna fi l ardi yabtaxuna min fadlillah moo tax yàlla daal leen koy teggil xiyaamul léegi léegi sunna la waaye bu njëkk ba ci ñoom dañ daan taxaw di julli di julli di seen tànk yi loolu yërmandi la pour xeet yi yàlla lépp lu mu dindi rek yërmandi la xoolal ku feebar tey bi ñu ko newoon da ngaa feebar tey bi ko da ngay woor ak par ñu yenu la sax teg la ci lal ndeysaan nga nga ne da ngay woor da ngaa da ngaa feebar ñu ne la man kaana minkum maridan fa iddatun min ayaamin da ngay tukki ñu ne la fa iddatun min ayaamin da ngay nàmpal ragal doom bi ñu ne la fa iddatun da ngaa ëmb nga ragal ëmb bi ñu ne la fa iddatun dangaa dem ba màgget nag mënatuloo dara ñu ne la yow bul woor wàcc na la koor wàcc na la loolu yërmande la pour yàlla tabaraka wa taala yërëm bu ñu yërëm jàmm te moo tax mu ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg lu yomb ci yéen bëgguma lu nekk islam diinun yusrun diine bu yomb la du diine bu sonal nii li mu digle santaane yu baax moo ci nekk li mu tere lu bon moo ci nekk te li ci diis jafe yàlla teggil na ko doomu aadama subhaanahu wa taala kon ra'afa yërmande la bil muminin ci way gëm yàlla yi ci nafsil ahkaami ci dindi yenn atte yi wa tabdiliha wala mu changé te saa yi ko changé dina indi bi maa huwa naafiun lahum dina indi lu leen gën a baax lu gën a baax lay indi ci duniyaaxum wa uxraahum saa yàlla bindee day indi lu baax te loolu gis nga adduna bi sax moom mën a yàlla di dindi waaye même ci façon portable yi xam ngeen ne portable yi ñu njëkk xaw ak yi mujjee xew du benn wala oto yi njëkkoon am ak oto yii jamono bii yan ñoo nekk à la mode ordinateur yi wala ñi doon defar ordinateur ordinateur bi ñu njëkk a defar ci àdduna ñi ko doon defar ci biir lañu nekk di ko defar ci biir ordinateur bi lañ dugg di ko defar di ko manipuler ci biir lañ nekk di ko manipuler tey portable bi day am ordinateur di portable ordinateur loo xam ne loxo mën na ko lëkk même suñ jumtukaayu àdduna yi yàlla bu ñu dindilee lu yàq dañuy indi lu gën a nekk moom ci àdduna maanaam sax min aaya aw nun siha ne ci bi xayri minha aw misliha même ci àdduna saa yàlla bindee dara xam ngeen oto démb yi ak oto tey du benn léeg-léeg ngay doon romb la nga nii oto bi la depuis mille neuf cent njëgeen njaay la woon ci amatul avion yi démb ak avion yi tey yan ñoo nekk nekk ala lépp nag ci lépp tabax yi sax même tabax yi tabax yi ñoo gën a baax te ba ci dégg loolu mooy àdduna yàlla saa yu ñu dindilee leen ba ci ahkaamu diin yi yàlla yërmandi la bu ñu ëmbal ak yéene ñu lu baax ñetteel mooy wujubu taslimi lillahi warrida bi ahkaamihi wa adami l ictiraadi alayhi taala jullit mooy koo xam ne su yàlla ne nii la mu ne noonu mu ne noonu su yàlla ne du nii mu ne du nii loolu mooy jullit loolu mooy al istislaam ulamaa ut tawxid ñuy jàngale aqida bu ñu lay jàngal islam définition ijmaali dañ naan la al istislaamu lillahi lillahi wal inqiyaadu lahu bi taat wa baraatu min ashirki wa ahlihi
kon suñu lay ñu déglu wax
wa na dëgg ida quri'a alquran fastami'u lahu dafa bokk ci islam ñett place kenn waru faa wax suñu wax leen yàlla nee na wa idaa quri'a alquran
baat boobu la indi
suñu war a nopp suñu jàng alquran kenn waru wax
suñu ci inda salaat ñetti place kenn waru faa wax julli bu ko teelee soo dégg ñu jàng alquran ci la bokk
drapeau xam ngeen vert jaune étoile ci digg drapeau ñan la Sénégal boo romboon pare ji ko yëkkati na rek boo këttéer looyu
dañ lay fekk toj sa saabaam ñu la tël dugal la ci biir la doon wax xamati drapeau laa wax saga
wala ku ko weddi dama dund bare wala nga dem buntu gendarmerie ñu yëkkati drapeau bi ñu ne la eh nga ne xam
xam nga fan ndogo
conk dana téléphone général gën a indi leen man dañu war a am adab am teggin boo nekkee ci place boo xam ne alxuraan bu fekkee ci àdduna lii rek àdduna
gis nga ñun ba léegi mbiru diine yi leerul suñu bopp xool leen armée yi armée militaire yi police yi gendarme yi douane yi
bu bu président di dem fenn ba ñu indi leen aéroport ñu ram kan ci yéen moom mës a gis loolu ram bi gars yi ram président président di leen romb
kan ci yéen moom mës a gis loolu mbax na yi sax day tolloo mbax na yi day tolloo mbax na tànk yi day tolloo tolloo mbagg yi day tolloo sàppe bi lépp ay jub ñu ñooy ñu ñooy nekk ci ginnaaw ñu gàtt ñi ñooy nekk ci ñuy ñem ñi ñooy nekk ci digg bi ñëpp ay tolloo lépp ay tolloo wala ñu benn mbagg fële benn mbagg fële benn tànk yi def nii yii ne nii yii ne nii yii ne nii yii ne nii
te ci militaire yi kenn du ko fa gis wala di ngeen ko gis ñëpp ay jub
bu ñu doon défilé sax tànk yi ñooy ànd
fii ilimaan mu ne allahu akbar ñi nekk ci sujjóot ilimaan ñenn ñi sujjóot ilimaan rukoo ñenn ñi taxaw ilimaan sujjóot am ñu rukoo ilimaan ne asalaamaaleykum nga gis ku continuer bàyyi ilimaan asalaamaaleykum naan subhanallah moom mu naan innama judila al imaamu li dañoo def imam pour ngeen est ce que boo fekkoon duggoo ci jàng nga fekk ilimaan ne allahu akbar ruko da ngay taxaw da ngay jàng faatiha ah nooy def waaw ilimaan ne na asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum rafetal njort ci imam bul def sa xel ne ilimaan jàngul taaya bi bul ko def saxal zannu bil mu'mini xayran yonent bi nee na njortul ci jullit lu baax moo la jiite rukool a rukool gina siggi sëlmal na sëlmalal sa yoon nekkul ci di ci des bàyyi koog yàlla xamoo xëy bu yàlla moo xam xëy nga xam nga suñu problème li man day fon mu fay jàng faatee yow sax gis nga après dootoo julli xam nga lay nekk da ngay xuloog imaam te yaa ngi imaam day caaxaan léegi dafa gaaw mais man sama yoon nekkul may jàng ba pare ko sës di xeex ak moom bu pare nga ne asalaam mu jàkkaarloo yow nga nekk pare seytaane naan la taayaal ba pare kon fekk dina xam la nga naan xool dégg laa mbir yu sew ko jullit moo nekk rafetal gis lan moo tax ñu ne bu weer yi bu ngeen déggee weer yi feeñ na lan la ñu sariya wax su ngeen déggee yéen jullit ñu ne weer feeñ na mais lan ngeen nekk fa naan kan moo ko gis est-ce que moom huwa muslim aw huwa hurrun aw abdun aw zakarun aw unsa loolu la leen wax ngeen wax dañ leen ne woor leen man shahida minkum shahra fal yasum jullit moo ne weer feeñ nga wooral sa yoon nekk moom bandiraak day lox mboot ak sa yoon nekk sa yoon nekk ci jàmm bu ko ñu loolu moo ñu démb yaakaar naa laaj nañu fi laaj ma barki dem ne imaam bu takk na waa xam bu takk laa ngay gisee da ngay xam ñu sangu na xam nga sangu ba nga xam bala ngay gisee bala nga xam nga sangu yow njort rek ba nga gis nag ah imaam kat sàngara lay sangoo ñu woo ko laaya ko biir ne lu ñu gis rek tey bu ñu gis ngir yi xëy bàyyi jàkk dañ koy laaya bi waxtaan ak moom xamal ko li ci ne ak yeneen ak yeneen yu sew sew yoo xam ne mbokk yi yàlla tabaaraka wa taala subhaanahu sunu borom dafa wax nañu jéggulu ci mbir yi wujubu taslim yàlla lu mu wax noonu noonu waaye wa rida bi ahkaam yi yàlla bu àttee dara rida ñu noom Omar ibn al-Khattab yonent bi ko ne amu'minuuna antum mu ne naam fa maa alaamatu imaanikum mu ne ko narda bil qadaa wa nashkuru fi raxaa wa nasbiru ala al-balaa xam nga lan mooy jullit mooy bu yàlla waxee nga nangu su àttee nga dog nga nangu falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fi maa shajara baynahum summa summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima loolu mooy lislaam mooy bu yàlla waxee nga nangu su àttee nga nangu yàlla wax na lii la lool yàlla àtte na nee na lool la lool ndeysaan ana benn waay jaarab sawri dañ koo doon rey ñu ne ko ndax nangu nga ne dañ lay rey mu ne nangu naa ndogalu yàlla nangu naa ndogalu yàlla ci man nañ ma rey oustaz Sayba nee na biñ ma may autorisation may dem campinal di waaraate mus naa waaraate bi benn waay yuuxu ne na man nañ ma rey maa ngi nii pare naa pour ñu rey gis nga gis nga julli dina yegg fenn foo xamante ne soo xamee ne lii yàlla moo ko nangu ci yow yow da ngay nangu ngay nangu ñu def la loolu parce que da nga xam ne yàlla moo ko tax te bi mu koy nangu yaa ngi am fert wala ndaw si njaaloo woon ci jamono yonent bi ñoo ne yonent bi dama njaaloo setal ma yonent bi ne ko demal ba nga am doom dem am doom ñëw yonent bi ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer mu dem nàmpal ko ba mu fer mu ñëw bugul dellu mu indil xale du mburu ne yonent doom yaa ngi nii mën naa lekk mburu kii aajootul ween yonent bi ne sahaaba yi def leen li yàlla wax ci moom laxas ko ay sër saaba yi jël ay xeer di ko dóor Xaalid ibnul Walid moo jël birig dóor ko ci bopp ndaw si bopp bi tas yonent bi yuuxu Xaalid ne ko mah yaa Xaalid laqad taaba tawbatan law usimat ahlal madina la wasaat waa Madina li ñuy bari bari bari bari ndaw si tuub na tuub boo xam ne bu ñu leen sëddale woon ci yaaba bi ñoom ñoom ñu ko aljana ndaw si lan moo ko poussé mu dem ne nañ def li yàlla wax ci man dafa am iman pourtant xam na loolu dafa metti de ñun amul iman waaw ndeysaan benn jigéen mos na ma posé question mu ne yàlla daa wax ku njaaloo nañ ko rey mu ne waaw mu ne ma man dama ñëw pour nga rey ma ma ne ko ku lay rey man kay du ma la rey dama ci imaamu jullit yi man du ma imaam imaam mooy rey mu ne wallahi dama njaaloo dama ñëw pour nga rey ma ma ne ko rey bu ma indil problème ba léegi saa yi ma ko gisee sama xel ci loolu lay def ma ne ko da ngay tuub barki démb ndeysaan indil na ma fi tàndal ndeysaan yàlla na ko yàlla jàppale da ngay tuub mu nekk ñu ci dëkkub diine li tarxiisee day tuub day tuub tuub sàll tawbatan nasuux nga delloo yàlla sa bopp nga góorgóorlu ci farata yi ak naafila yi di xiyaamul layl di woor trois lundi jeudi di woor ñetti fan yu nekk ayaamul bii lépp loo dégg lu baax nga nekk ci asallah amaana yàlla tabaraka wa taala mu jéggal la sa bakkaar soo nekkuñu réewu diine tooñee yàlla nga dugg am na ñoo xam ne bu ñu tooñee yàlla ci dëkku diine dañuy dem wane ji seen bopp ne man mi maa ko def man la damaa bëgg ñi def santaane yàlla sama kaw waaw kon jullit day nangu jébbulu ci digal yàlla waaye mu nangulu yàlla atte lan la yàlla atte ci yow waaye dañ la war a rek nga nangu lan la yàlla atte dañoo war a dagg sa loxo nga nangu lan la yàlla atte du yàlla atte nga nangu wa adamil itiraadi alayhi mooy tandikul ñu ne yàlla nee na nga ni waaye ko yàlla waxee nag danga ko wax kon dama dof bañ ma koy def ah xanaa di yow ne nga jullit nga mu'min nga yàllaa ko wax kon da nga war a nangu mais saa yoo opposé santaane yàlla lasta bi mu'min aaya moo la ko wax ma kaana li mu'min wala mu'mina iza qada allahu wa rasuluhu amran hatta yusallimu taslima loola yàlla wax hatta yusallimu tasliman su yàlla attee hatta yusallimu tasliman ngeen nangu kon jullit du opposé wu santaane yàlla moo wax def yonent moo wax def yàlla moo tere bàyyi comme suñu jigéen ñi niñu nekkee yàlla bu nee na bu kenn def yaram mu ne ñu naan ah wax dëgg yàlla moo ñëw muuru na tàndaay bi yàlla nee na bu kenn meesu tamit duñ wax dëgg yàlla dañuy meesu yàlla nee na bu kenn xeesal ñu ne ah moom waaye ma ne jaay màkka ña laa wax ki dañuy wax rek moom Sénégal sànq wax naa ay ñi daal di koy eggali seytaane moo ne woon yàlla dinaa topp nit ñi ba ñu taxyir xalqallah wala yu badlan xalqallah dinañ soppi bindu yàlla kon loolu kufru la ndax yàlla moo xool ni ko neex ci ay suratin ma shaa yàlla nee na ci melokaan bu ma neex laa def melokaan bi moo ma neex man yàlla moom neex waxuma yow bi la neex de man bi ma neex laa la bind kon loo war a def samina wa atana yi man yàlla nangu naa loo ma def noonu la yow jaam nga jaam danaan olof yi dañ naan ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong bi jaar ñun yàlla moo ñuy diri wala ku ñuy diri doo taamu fu sa ndong bi jaar jullit yàllaa koy diri saa yoo nangoo yàlla diri la nekk nga jullit soo nanguwul doo jullit atte yi dañ ci war a def istislaam li neex ak li naqari mbokk yi tabaski neex na wala neexul ñu tiim yàpp lakkal la ba mu ñor indi la jimboog soble bu leen bu leen tax xam ci ku nag da ngeen woor neex na wala neexul neex na de waaye koor neex na wala neexul dañ leen neex waaye da ngay nangu ñaari yàlla moo la ko sant xam ngeen ne koor neexul mais da ngay nangu parce que yàlla moo la ko sant yàlla moo ne ne bu lekk bu naan xiifal maral aaral bët yi aar nopp yi aar awra bi aar lépp lépp lu koy yàq ci xeetam bul ko xalaat bul ko nga daan ne waaw yàlla man noonu laa def waroon ba jigéen ju sollu bon daan ne nii bu la bëggee jege sama dimbali ma rek dimbali ma de nga commencé di ko dàq bu fekkee looy déglu la nga puus ànd bi non sëñ bi dimbali ñu rek dañoo woor gis nga day aar sa koor noonu nga nangoo tabaski nangoo korite loolu mooy islam li neex da ngay nangu li naqari nga nangu loolu mooy diine. waaye bul opposé mukk ñu ne yàlla nee na nga ni déedéet ñeenteel te ci la ñuy jeexale mooy zammu taqti fi diin wa tarhil asila dañu bañ ci diine ngay xeeb santaane diine yi nga koy xeeb yàlla nee na nga ah waaye nag di ko sooxal wala li gën a yées mooy ngay indi ay question yoo xam ne dara nam moo ci dara lu daal di diine ay question yoo xam ne amul bopp amul genn amul fulla amul benn fayda ci islam yenn saa yi nga gis ku naan yaayu Moussa lu tudd te loolu saa yoo gisee ku koy laaj njabarkat la yàlla fan la nekk lan la lay jëriñ yàlla nu mu mel lu mu lay jëriñ ah ars fan la nekk lu mu lay jëriñ fan la safara nekk lan la lay jëriñ fan la ajane nekk lu mu lay jëriñ li lay jëriñ nga war a laaj lan mooy samay farata julli lan mooy samay farata koor lan mooy sunna lan mooy mustahab lan mooy makru awra góor fan la tàmbalee fan la yem pour que sàmmonteeg li ngay sol lan laa war a lekk lan laa war a naan lekk yi ban lekk moo ci dagan yooyu moo am njëriñ waaye di laaj loo xam ne amul benn njëriñ benn waaye ñëw na ci imam ahmad ibnu hanbal ne ko imam su may julli xam naa fu may jublu bu ma demee géej di sangu nag ma simmi sama yére fan laa war a jublu mu ne ko fi nga simmi sa yére nga xool yére yi bala ñu koy sàcc nga ñibbee yaramu neen xam ngeen kooku laajul woon laaju kuy jëriñ waaye imam bi moo ko gën a sakk moo tax mu ne ko comme day dof dof lu imam bi gën ko naan kaani ne ko xoolal fi nga simmi sa yére bala ñu koy sàcc nga ñibbee yaramu neen mais moom ba muy laaj xam ngeen ne laajul woon laaju xam nga am na laaj yoo xam ne mooy mokke mooy sayite loolu dañ koy tere jullit moom la yàlla wax fii banu israil mi ngi nii aturiduuna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl bu leen laaj comme waa banu israil nu ñu loon laaji Musa naan ko won ñu yàlla nga fekk nit lu mu mënul nga naan ko defal ma ko wan ma yàlla loo mën yonent yàlla Musa mënu loon wane yàlla ab sénégalais bu nga wane yàlla aka neexoon nag mu jàpp ci sa loxo ñëw ba mu ne la mu ngi nii kii la waaye au contraire dañ lay jox ay wirdu jinne moo tax da ngay jékki-jékki rek dof chaque jour nga dajeeg nit mu dof chaque jour ñu indil la nit ni la kiir dafa wirdu ba dof wirdu du dof loo nit astaghfirullah toogal fii ba suba di ko wax doo dof mu wird astaghfirullah du dof loo nit subhanallah du dof loo nit laa ilaha illa allah du dof loo nit allahu akbar du dof loo nit yonent bi amoon na 124 000 sahaaba déggoo ci ku dof parce que li ñu leen joxoon du leen dofloo waaye am na wird yoo xam ne xam ngeen li may wax xam ngeen li may wax bu baax a baax ñi ngi jaay téere yéen a ma ko gën a xam dof dof lu ñu naan la lii wird yoo boo ko wiree da ngay am xaalis ba nga dem jël ko tëj néeg ñett nga ciy def de ab am ponkalu ñàngoor wër néeg bi ne la loo bëgg bu sa bopp bi oyofee comme ni waa ji defoon di wird di wird ba jàgg ngandum mbott ñëw mbott mi benn gémmiñ gi mu ngi ci kaw ardoise yi beneen baa ngi ci suuf mbott mi ne ko loo bëgg mu ne ko xaaxaam année boobu waa ji bi mu bayee lépp xaaxaam la ronlal gi sax daa sax xaaxaam wëti gis gis que du diine jullit day mooy tundiku loolu ani astaxfirullah du dof loo nit laa ilaha illallah du dof loo nit allahu akbar du dof loo nit jamais allahuma salli ala muhammad du dof loo nit waaye bis boo fi jëlee loo xamante ne nekkul asmaullahi l husna yàlla nee na walillahi asmaul husna fad'u ud'u llaha aw ud'u rahman ay yamattadu falahu asmaul husna yaa rahman du dobloo nit yaa rahim du dobloo nit yaa allah du dobloo nit waaye ku fi dugg ci ay tur yoo xam ne loo gis yow ne yaa ko def mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala fii la ñuy yëpp